voilà alhamdulilah <laughs> man day man day baax yoo xam ne ma rey rek man gëj naa gëj naa reetaan nii quoi ne <laughs> pas laisser les gens tranquilles un peu. Alors ah, là, tu viens chez quelqu'un. C'est pas Kokoya là, c'est quoi ça là. eh Bakayoko ça va lu bees. Mm, dara beesul bàyyi ñàngal bi léegi affaire bi jeex na. waaw ñàngal mu mi ngi ci biir. ndey sa ginaar gi neex na de. kon nooy ah ginaar gu jigéen la. moo taxit nooy na. salaamaaleykum Nosko. yee Bokar. nu soxna yi. Ndeye jaarama Diallo Diéré. naka ngeen def. te nga ñëw dara jàmm te xam ne jàmm rek la dox. ah. <laughs> ça va. ça nice. soxna si noo yi yaa xel daal moo neex ñu ko ak ñàngaram yaa changé jàmm naka waat rek mais Bokar hmm. maa ngi dugg ci baxaw ko di ñàngal ma ñëwoon day jàll di ma faye bakkan ah Bokar hmm. <laughs> sa waa kër yi lan la leen def xanaa xamuñ ne jàmm rek laay dox los ko régleel ah en tout cas reer bi neex na dégg merci beaucoup. ginaar gi nooy na. <laughs> ki nga la. Bilaay. nu mu demee ah? dëgër këcc. Boka lu baax waaye. amoon naa la yow ci <laughs> <laughs> mais mënoon nga reer waa mais li nga oo ah. oo. om mel ni pono. fii yow tamit fi nga génn gis nga fee bi. waaye yow même ah? <laughs> ah, nga reer bu baax ah. reer bu pare doog a ñëw de. ah waaw non ah, mais c'est am sama benn mhm. mhm. yaa ngi koy daggate. <laughs> ma ne ma yaa ngi koy kuppati. <laughs> booy booy bëggoon naa ñu waxtaan. Euh. dafa am lu am keroog te loolu dafa yéeme quoi. Hmm. jigéen bu nekk jigéen la am yoo xam ne boo gisee xolam du neex catéchumère li mu yem ci keroog mati sol serviette xam nga yooyu dafa nekk affaire yoo xam te ne tey du neex pour mu garder ko léegi man ma la doon ñaan waxtaan naa ci Aïcha ak mati d'accord nañ pour ñu dem seeti kati këram waxtaan ak moom ñoom ñu xam ne moom ci boppam mu comprendre comme quoi que ñii bi ñu ñëw man maa tax ba nga xam ne tey du xam ne yow lenn doo ci lenn loolu laa bëggoon ñu ñëwaat ci soo mu joxee feu vert mu ànd ak ñoom ñu dem seet ko ñooy waxtaan ak moom aisément wax ko clairement comme ça mu xam ne yow yaa ngi woon ci kaw jàpp sa njàmbur ñuy seetuñu la su ko defee mu comprendre mu nga xam ne loolu mën na gën a taxal seen diggante lu mu la jàppaloon mu bàyyi ko parce que man gis naa ne moom wàcc naa kat yi su d'accordee ñëwaat ba sa kër di la seeti c'est parce que am na lu mu fàtte ci li ngeen jotee. tey baax rek si da baax rek mais dina baax de grawul de boy affaire dina baax dina baax de. lu xew. Lisa. Lisa.